asalaamaaleykum euh, monde bi yëpp imam Moustapha yi moo ngi nii toog këram donc ñi wax ni dafa génn àdduna yëpp wax ñu dëgg ay sos la quoi ay sos la ay wax yu yàqu la ay wax yu bon la mais imam Moustapha Gueye moo ngi nii toog di woote téléphone donc képp ku nekk moo ngi nii yàlla ko yàlla bàyyi fii suñu kanam mu ñuy ñaanal